la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 mbokk yi taamu seen émission boo am solo bi ñu jagleel maam Cheikh Ibrahima Fall di Jazboul Mouride di ko teewlu saa su ne ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax di tàmbale si nuyoo bi ak ziar bi ci Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké xalif général des Mourides di ko ñaan suñu borom yàggal ko fi loolu te mu ànd ak wér. noonu lañ koy ziaree Serigne Cheikh Jëmb Fall mii maam Cheikh Ibrahima Fall sunu borom yàggal ko fi loolu te mu ànd ak wér waaye di beral nuyoo ak ziar sunu Serigne sunu yaakaar tey ak ëllëg di Serigne Cheikh Ngunda Fall. di ñaan sunu borom yàggal ko fi lool te man de ko ak mboolem njabootuk Serigne Touba gi ak maam Cheikh Ibrahima Fall gi di am mbégte loolu di teewaat si talaata bu màgg bi eh, ñu am mbégte kon eh, janoog sunu jëwrin sunu xarit sunu genwal di Serigne Mamour Ndaw Baye Fall lépp rek xam ngeen ni delluwaat si maam Cheikh Ibrahima Fall waaye tey ñu tànnal leen maam Cheikh Ibrahima Fall ak ndigal loolu yi nag fas yéene si ànd ak nag ay jotaay yu am solo yoo xamante ne am na si yoon bi lu si mel ni ndigal yi nga xëy ne mu ngi euh, rote kër Serigne Touba Khadim Rasoul di tag tab bi kon si kër maam Cheikh Ibrahima Fall lu si mel ni mbalay mm, tuubaa yi lu si mel ni xel kom waaye lu si mel ni ndigal yi nga xëy ni sax euh, maanaam euh, biti réew lañ koy séento yooyu yëpp kon incha allah dinañ si ànd ak mbokki taalibe yi Serigne Mamour Ndaw asalaamaaleykum. waaleykum salaam Serigne Aline Badara Ndim. aouzu billahi mina sheytaani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 Serigne Cheikh Sidil Mokhtar Mbacké xalifa général de Mouride di ñaan suñu borom dala ko fa yàggal bu baax a baax a baax may ko ak wér waaye di ñaan a baax Serigne Cheikh Jëmm Fall mi fi maam Cheikh Ibrahima Fall di ñaan suñu borom dala ko fa yàggal bu a baax te may ko ak wér di ziar baax ak a ñaanam mboolem sëtti Serigne tubaa yëpp waaye di ziar mboolem seexi Serigne Touba yëpp di beral nuyu ak ziar mboolem taalib yëpp di ñaan ci barke Serigne Touba li ñuy topp yàlla nañu ci laje ngërëmal maam Cheikh Ibrahima Fall di ziar bu baax a baax itam mboolem ñi nga xam ne saa bu talaata jotee rek ci waxtu wi ñuy bàyyi xel euh, télé bi ngir rek jotaay bu am solo bi nga xam ne lépp day ndigalal ki fi nekkal maam Cheikh Ibrahima Fall muy Serigne Cheikh Jëmm Fall waaye ni nga ko waxee rek Serigne Aline Badara euh, xam ngeen ne bi moom tey dañ ko jagleel Cheikh Ibrahima ak ndigal Cheikh Ibrahima ak ndigal nag mel na ni mas nañ ko xee waxtaane waaye xam naa moom du jeex ndax lu tax jeex mooy maam Cheikh Ibrahima ne xam na ne ndigal moom mooy buntam moom ndigal moom ci la saxoon saa su ne euh, di ko jëfe ba tax mbolem jabot gi gis nga amna ci ñun sax nangu ndigal lañ leen di dakantale ku ci mel serigne modamin tafal nga xamne xamna du ñak sax lenn ci ay jaar jaaram danañ ko feñal tay ngir rek ku ne mom ku daan jëf ndigal la euh, tay itam ku ku ku fonko ndigal la waye mbollem buntu kër cheikh ibrahim itam lako tambalé ci kër serigne modou safal mu ko fi ñëk wutu euh, jaar ci kër serigne bashirou fall ñew ci kër serigne mortala fall ñew ci kër serigne fall ndar ñoo ci kër sëñ Mbacke sëñ Modou Mbenn kër sëñ Aliou Fall Mboor kër sëñ Abdou Sakkour kër sëñ Ngunda foo ci dugg rek tey day ci loolu lañ nekk ñoom seen jàmm yàlla ni nga koy waxee saa su ne ñoom mooy ndigal mooy liggéeyal sëñ Touba moom la Seera Fall defal muy jàmm yàlla waaye njaboot gi foofu lañ tënku. Mm-hmm. kon xam naa dañ lay delluwaat kàddu gi rek incha allah ba ci kanam tuuti yàlla ndee. jërëjëf Serigne Mamou Ndaw Baye Fall. Mm. kon ñu bokk rek euh, kon euh, sofu si ñun ñëpp ziar kon euh, ahlu Mboussobé ñoom mboolem seen mhm. si nag kon <coughs> wàccuk Serigne Thierno Bousso mhm. moom Serigne Moulay Bousso mi nga xamante ne moo toogoon jotaay ak Serigne Mbacke Bousso mhm. mu mel ni suñu borom dogal na ni génn na àdduna ni ki big si goudi hmm. ba tey ji ci takusan gi sax ci talata gi ci euh, lañ ko djebbal euh, euh, borom bi ci Gédé Bousso hmm. kon ci sunu kaddu hmm. sëñ mamou ñu koy jàll ziar kon mbollem yoonu murit diko tambalé Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké di ñaan mu yag fi lol tan rek wër kon mbollem yoonu murit rek ñu ngi leen ziar jëmm ju tedd jooj di cheikh no Bousso te bawo fi big si goudi waye kon diko ziaré ahlum ahlu bepp bépp ni ñu ko waxé waaye di ko ziar kon wala groupe Lamfal communication. Mm. di yëkkati seen ko ziar. Mm. di ko jëbbal kon euh, mboolem mbokki jullit ak mbokki taalibe yi. Mm-hmm. si euh, jëmm ju tedd jooju. Mm-hmm. nga xamante ni moom it kenn la woon ci barab bi. Mm-hmm. Euh, dégg naa si jëwriñ sax mu wax ni moom Serigne Thierno Bousso kat moo doonoon borom liggéey bi fii. ci Lamfal kon bokk si bu baax a baax. ay jotaay yu bari sax ndeysaan yoo xamante ni si wàllu. liñ naan ilmu nujum yaakaar naa noonu la ko arab di waxee di astronomie mhm. astronomie am na waxtaan bu yaatu woo xam ne sëriñ Mame Balla Mbacke Mokhtar mhm. seqoon moom si si mhm. télé bi kon euh, mu ngi noonu rek moom sëñ Mamour sëriñ Cheikhna Bousso ñaari kaddu rek euh, waaw ñu ñaan sama borom yokk ay leeram tas ñu ci bu baax baax baax moom sëñ Cheikhna Bousso eh, ndax waajuram wa day sëñ Moulay lu bëree bëree bëri wax na ko maam Cheikh Ibrahima Fall Baye Mouridina maamam ju baax ja itam di sëriñ Mbacke Bousso itam ku ne xam na ne moom itam mu euh, euh, lépp ku tedd ki Cheikhul Khadim diggante ma sëñ Tuubaa moom defe naa ne du neexuta waxtaane sax mm-hmm. waaye doy na sëkk rek ñu wax ne keroog bu fi ku tedd ki jógee Cheikhul Khadim moo ko taxaw euh, te it muy koo xamante ne bii itam defe naa ne booy wax lislaam moom mm-hmm. loo ci loo ci loo ci mën a wax rek da ngay bër sëñ Mbàkke Buso moom ba pare door a lijjanti ñi ci des waaw defe naa fa tolloon ci boroomam kenn àggu fa waaw waaye tamit eh, taalibe gi nekkoon ci moom eh, maanaam tamit kenn mënu kenn mënu ko xiyaas ndax ndax eh, waxoon na ne mas naa wax ne ci tënk rek sëñ Mbàkke Bousso loolu kenn ci sëtam moom a ko wax mas naa wax ne Cheikh Ibrahima Fall de li li li ngeen di gis ci moom fii ci àddina koroog ba mu sukkee ci sëñ Tubaa jóg maanaam ba jóg ba mu jaayantee faxasiti woom yi mooy barke bi ko topp ak mbooloo mi waaye waaye la jaayantee sëñ Tubaa dara feeñ ci àddina loolu sëñ Mbàkke bu ko wax loolu moom ñu ngi ma ko nettalee ca Gédé mhm. waaw te te lu bëree bëri loo xam ne euh, mënees na koo wax ci jotaay bi kon mhm. nag di ñaan bu baax a baax mhm. euh, sëñ Thierno moomu moom sëñ mulaay sëñ Moulay di jàmbaar di koo xamante ne bi itam bind na lu bëree bare bari ci yoonu murit tey ki nga xam ne moo ko fi toogaloon toogal fi sëñ bu Bousso sama boroom dogal mu génn àddina ñu ñaan Eh, sëñ Mbàkke Buso teeru ko eh, sëñ Mulaay Buso teeru ko eh, sëriñ Tuubaa teeru ko ci barke maam Cheikh Ibrahima Fall maam Cheikh Ibrahima Fall gane la ko ndeysaan amiin barke sëñ Tuubaa jërëjëf sëñ Mamour jërëjëf yàlla na suñu borom def loolu di ñaan suñu borom dolli ngërëmam ak waajuram yu tedd yi nga xëy ni ñoo ko jiitu moom sëriñ Ceerno Buso kon ñuy fàttali ni sëriñ Ibrahima Gueye mu ngi fàttali ni léegi rek ni ñaan gi sax xam naa ni jot nañ digal ni alxamis lay doon mm-hmm. alxamis bi yemoo ko <coughs> kon juróomi fan si weeru janvier incha allah mm-hmm. lan koy ñaanal moom Serigne Thierno Bousso di ñaan suñu borom kon gën a dolli ngërëmam mm-hmm. te defal ko ay waajuram yu tedd yi nga xamante ni ñoom ñoo jiitu ji sëñ Mamour mm-hmm. sëñ Mamour laataa ñoo dugg kon it ci lef bi di beral nuyoo ak ziar. Baye am di Moustapha Ndaw moom Baye Cheikh Ndaw toog jotaay Baye Cheikh Ndaw Mm-hmm. di ñaan suñu borom yagal ko fi lol te yokk wéram bu wër a wër wër ndax xam nga ni ni ko mbokki talibé yi ñenn ñi xamé mm-hmm. jamono ji mu ngi won ci saw jant mm-hmm. al dogal na ni tay ji sax fi mu ne nii mu ngi ca njaareem di ñaan suñu borom gën ko katanal amin kàttanal waaye ñëw boo xëy ni dëgg la ñew bu ñew bu gatt la way ñew bu bari njëriñ way ñu sant ci Serigne Touba ak Cheikh ibrahim lol ñew bo wax dëgg yalla ciant giñ ko amel ak ciant giñ amol amoon Baye Cheikh ndaw gi. Mm-hmm. mun niñ ko ëmbee suñu xol mënuñu kaa tuddee suñu làmmiñ. Mm-hmm, mm-hmm, euh, ndax bokk na ci suñu jëmm yi xeebu yi xam nga ni am na lum ñu si beral. Euh, di euh, bis yoo xay ni rek kon nekk nag ak ñun. te loolu yëpp ñu yëg ko bu baax a baax bu doon sunu defaru. waaw def na si ñun lu baree baree baree bare. kon baam di ñu ngi lay ñaanal bu baax a baax sunu boroom yàggal fi lool. Mm-hmm. yaag mboolem njabootuk Baye Cheikh Ndaw gépp nag mm-hmm. ñëpp rek yàlla suñu borom yàggal leen fi lool mm-hmm. te te yokk seen kattan te te defal ñu seen ngërëm bu wër a wax dëgg yàlla barki maam Cheikh Ibrahima Fall di si ziyaarale di si ziyaarale sa ñam di xadi Fall moom Cheikh Sérif Assane ñaar ñaari am di moom ni ko sëñ Ndoye Baye Fall waxee rek ñoom moom wax dëgg yàlla loolu àll dëgg la tey de moom yóbbuwaat na yóbbuwaat na ñëpp ci àll moom waaw ndax euh, comme ni nga ko waxee rek xam nga sama borom dafa dogal mu teew Ndakaaru euh, moom nag sakal nañ ko ay barab waaye moom moo tànn barabu seigne Aline badra Ndim <laughs> ne mom lay dalal xam nga lolou mbégte la waaw sak sak sak sak ne yow lay dalal ay mbokki taalibe it ay mourid yo xamni ni ñomit ñuy japp ci liggéey bi la mm, ñoom tamit tanul ko barab bo xamni dafa wax ne bu munta ñàkk lu ji foofa it mom mm-hmm. faaw mu def ci yow ñaari fan ñetti fan door dem yeggalee ji di des foofa waaye loolu nañu ra ci sante bu baax te di ci ñaanal tay xamne mm. sa cërub bopp la xam nga damay faral di wax li ma lay wax moom saa su dama la koy wax rek mbir mi moom yanu wuñ ci dara Cheikh Ibra ko yanu daf ñoo tiim rek waaw daf ñoo tiim Cheikh Ibra ko yanu te eh, eh, loolu moom mbégte mi ci am mooy noonu sedd na suñ xol njabootu baay seex gi yëpp waaye Serigne Cheikh Ngonda na it sedd na xolam wér na waaw moom maam Saliou Fall moom Cheikh Ibra ndax loolu moo ko wax ci làmmiñam may dégg mm-hmm. eh, te loolu sa cëru bopp la mm-hmm. kon santal bu baax a baax a baax santal bu baax a baax lépp Cheikh Ibra Fall la rek. alhamdulilah waaw lépp Cheikh ku defee na saw jëna ko téye daal. Mm-hmm. damay wax rek rocc ko waaw rocc ko Cheikh moo yor lépp kon su ko defee. Mm-hmm. Eh, loolu cant la waaye tamit mu jaar ci sëñ sëñ Amdi Xadi tey. yow léegi lañ fa jóge Daaru Bayre waaye sëñ Amdi it mi ngi jël ñaan ak ziar. Mm-hmm. di ko di ko jottali waa Jazbul Murit ndax nee na itam wax dëgg mu ngi teewlu bu baax a baax waxtaan yi te xolom sedd na ci bu baax. xew-xew yi nga xam mi ngi xew ci biir kër Sërif Asan lu ci ëpp tamit ñu dem di ko teewe ji nee na sedd na ci bu mi ngi mi ngi ñaan sama borom def ci barke ak ak sutura loolu it wax tey léegi rek jottali nañu ko kon ñu ngi koy ñaanal moom itam sama borom yàggal ko fi lool te mooy ko wér ndax ziar bi ko sëñ am di ziare ji woon tey moom sedd na suñu xol bu baax te moom bëgg na ci fàttaliwaat nañu daal diggante Serif Assane ak Baye Cheikh Ndaw loolu moom fàtt te te kat korog bi Serif Assane eh, demee mhm. eh, la Baye Cheikh wax ne may sédd la ji ngan nga ci àjjana nga xam ne demuk Serif Assane la la wax ne moom dootu fi toogati moom nganu sëriñ Assane nga lay fekke ji sëñ Ibro Xuja xalifa sëñ Mandumbe moo ma ko nettali nee na ma keroog bi ba génn ci buntu xay gi laa dajeeg sama mu ne nganu sëriñ Assane nga maa koy sédd la ji daanaka ca fan yooyu la làqu loola nag tey bi bi am di teewee ci sëñ am di xat loolu loolu rek la ma fàttali loolu rek la fàttali te hasard daal amul ñi gëmul ko fi indi waaye ñu xam ne ne hasard jotaay boobu rek moom moo dellu si sëñ Mamour kon ñu ngi gën a dollik ñaan suñu boroom yàlla na def kémtaan si dunduk Baye Baye Amdi Moustapha Ndaw amiin barke Cheikh Ibrahima moo ma ki moo ki moo ki moo njaboot gépp rek mhm, mhm. moom njaboot gépp rek mhm. sëñ Fallou ñu ngi koy ziar bu baax a baax waaw sëñ Bachir ndeysaan sëñ Assane ak ñoom ngi leen di mhm. ziar bu baax ak njaboot gu <laughs> waa yëpp na ñu bàyyi xel jotaay bi alhamdulilah waaw ñu ngi leen di bàyyi xel njaboot gi yëpp ñu ngi bàyyi xel jotaay bi waaw di ci beral nuyoo ak ziar nag soxna Fandaw moom mooy moom sëdd yëpp mooy suñu xalifa waaw moom itam saa su ne mu ngi taxawoo ak sëñ Lamp ak sëñ Lamp Ndaw waaw macha allah jërëjëf kon sëñ Mamour mhm. ñu dugg ci euh, maam Cheikh Ibrahima ak ndigal. Mhm. ni nga ko waxee sànq. Mhm. ndax képp koo xëy ni toog nag euh, jotaay bi maam Cheikh Ibrahima Fall. Mhm. Mm, toogaayam boobu li ko fa bàyyi mooy ndigalum Serigne ndigalal Serigne Touba ca loolu dina gën a leer incha allah si biir waxtaan wi. bokk na si ndigal yooyu. Euh, yuy jógee saa su ne kër sëriñ tubaa di tàbbi kër maam Cheikh Ibrahima Fall. buñ ne màggalu tubaa jub si na. maanaam ñu daal di booloo. man sañu maa wax laabal dëkk bi waaye xaw ma nan laa ko seetal dëkk bi xanaa bu dee sañ nañ ko wax. Mm, ndax mm, <laughs> waaw wala wala wala wala buub dëkk waaw buub dëkk bi boog buub mm. dëkk bi ca loolu Serigne Cheikh Jëmb faal yaa na fi yàgg loolu te ànd moo koy jiite mm-hmm. te loolu tàmbali si jamono yi Alaaji Baara am mm-hmm. na suñu borom dolli ngërëmam mm-hmm. moo yeexe moo yeesaloon digal looloo ñu koy taxaw boobu ba léegi lenn si euh, buñ ko defee ba noppi yeewee bi maanaam dajaloo gi ñuy dajaloo sëriñ bi yónni ki nga xëy ne rek moom moo ko doy mhm. euh, ngir mu ñëw toog mhm. daal di wax mbooloo mi jotaleen kàddu sëriñ bi mhm. xam naa ne moom la ñuy njëkk a seet yi sëriñ Basiru bii weesu sëriñ Basiru Mbàkke moom sëriñ Abdul Xaadir yaa ngi fi yàgg loolu te ànd ak wér ñu ànd ko teewlu kàddu yi nga xamante ni moom la rotal si jotaay bu am solo boobu dellu si waxtaan si على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه ذوي التمكين ñun ko sëriñ bi baaxoo at mu jot dama yónni ci Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké bi nga xam ne mooy jëwriñam fàttaliwaat ko sëriñ Mountakha joxaat ma ndigal ma wax sëriñ Cheikh mu sëriñ Abdou Latif mi nga xam ne turam bii ko sëriñ Ibrahima wane léegi maa ko doon jëkk a tudde ca at mu njëkk ma bi nga xam ne Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké ko ci sama loxo sëriñ Mountakha moo ko jàpp ci loxoom boo loxoom ba bi ñu wax ci mbirum bale mi mu war a ñëw ci sëriñ Cheikh mu ne ma sëriñ Cheikh Abdou Latif de day jàmbaar di borom pëseef moom sax Baye laa koy tuddee far kon loolu ci man laa ko ci man la njëkk a waaye li ma ko wax rek loolu kenn war a ci génn soow ku yaakaar Sëriñ Tuubaa ndax euh, Cheikh sëriñ bi yaakaar jëpp jëmu sëriñ bi te mooy nattuwaay bi gën a rëy ci li may nattee ci ku gëm Sëriñ képp koo xam ne sikk sàkkoo dara ci mbiram rek secteur bi wóor na waaye képp koo xam ne nag yaa ngi nattante dara ci mbiram rek bu fekkee gëm nga Sëriñ Tuubaa it gëm nga des na loolu moom démb la daa ko mujj wax ci timis kon sëriñ baa ngi lay bu baax ni nga ko sëriñ Fallou Fall waxee léegi rek te suñu kilifa gu baax Cheikh Abdoul Ahad Mbacké daa ko wax ñetti ñetti baat la sax danaa wax ne kër Serigne Touba dafa am mbañ kër Cheikh Ibrahima am mu ne kër Serigne Touba mbañam mooy ñàkk a joxe ndigal kër Cheikh Ibrahima mbañam mooy ñàkk a ndigal daara wax ne Cheikh Ibrahima daw taamu ndigal loolu itam lu am solo la ndax ndigal itam kenn du ko taamu wa minhum man yaqulu zarni wala taftinni loolu nag yéen mucc ngeen ci yàlla yi suñu borom dimbale ba ñu mucc ci li ngeen ci mucc yéen ndax aw leen bëgg aw leen bañ ndax Serigne Modou daana def bu ñu wooyee jot li ko ndigalul Serigne Touba tam da ci Cheikh Abdoul Ahad mu jamonoonteel ba ci Cheikh Abdou Khadir li mu ko liggéeyee li muy gàtt gàtt ba ci Serigne Saliou li mu ko liggéeyee saa su nit masaan agsi di ko jox si ndigal lam day njëkk a wax mooy yëkkati ak deel jox la ndax nga fii ma nekk rek ndigal moom fi bàyyi woon loolu nag képp ku di taal bi foofu a nekk kon Cheikh Sidi mu ngi leen di sant bu baax mu ngi leen di gërëm bu baax a baax moo tax bi may ñëwee itam ñor gu ko ñor moo tax mu wóolu ma ak Serigne Moustapha mu ngi taawam na ma ànd ñëw ci Serigne Cheikh Jimou Fall sant ko ci li weesu lépp ndax waxtu wu nekk yéen a ngi jëf te àndut ak wax guddeeg bëccëg lu ngeen am rek na ko seen maam ju tedd ji daa lu ngeen am rek Sëriñ Tuubaa ngeen ko yéene ndax Cheikh Ibrahima noonu la meloon te Sëriñ Tuubaa daa waxoon ne xam ngeen ne li ma sant def ngeen ko wala déet ñu ne ko déet Mbàkke moo ne waxtu ma sante nit lëf day am lu jug ànd ak moom. bu jëfee ndigal la mu dëkk moom bu jëfewul ndigal la day dellu si waat man dama xamal na dem na waaye awlu fu ma ne te li Serigne Fallou wax Serigne moom li mu am mayu ko sarxewu ko da jaay mm-hmm. ci yéen la toog di liggéeyu mm-hmm. Cheikh Mouhamadou Moustapha toog ci genn garab ak Cheikh Mouhamadou Fadil ak Serigne Massamba sëriñ bi romb leen laaj alamin doon ñu wax ko ko sëriñ bi won leen mu ne leen danaa bëgg bëgg ngeen xam ne du ma bàyyi kenn du ma magi kenn du ma nijaay kenn ndax lii nekkat suñ borom ko fendi te li ci tax a joxe sa ak liggéeyal ma ñoom ñëpp tamit jaay deg suñ tubaab liggéeyal ko negal nag ñoom ñoo ñee ci mënta mucc asama keneen kon sëriñ bi moom lim lim yoon majiru ko saraxlu ko da jaay sëriñ Abdou Lahad Mbacké daana wax ne ñetti yëf mu am la may ak liñ la sarax ak liñ la jënd mu ne ak liñ la dénk mooy li la li la nit dénk waxtu ko borom soxlaa du koy jëlaat liñ la may itam bu ko borom ko borom soxlaa du koy jëlaat waaye nag li liñ la jaay kala ko jaayee sax tëreetu la ci njëgg kon loolu yéen li ngeen am ci Sëriñ di ngeen ko jëf seen maam ñu tedd ñi moo ko jënd ci sëriñ bi sëriñ Tuubaa fayeeku ko waaye waxtu wu nekk itam yéen ko gën a yeesal di gën a fàttali kon sëriñ bi daal muy leen sant bu baax di leen gërëm di ñaan jëf ji ngeen jëf yàlla na ko suñu borom nangu yàlla na ko suñu Tuubaa nangu tàbbal ko ci jëfam ju tedd jëm jëfam ju tedd jëm laay jëfal sëriñ bi man sama dégg ci sëriñ Soxna bi mu wax ne maam Cheikh de ñëw ci kër sëriñ bi fekk suñ bànda saw suñ bànda ñëpp dégg nañ ko Cheikh Ibra gis ko seen ab cëram ndax moom yàlla da ko mayoon ku mas a gis rek day xam ne ci ba mu ko séenee daane daane laaj ba am na lu def ci kër gi ñu ne ko moom de li mu fi def mooy day bu ëttu kër sëñ bi mu ne ci bu ngeen xamoon li ma ci bu ëttu kër sëñ bi kon na xam ne li ngeen jëfaat ci ak seetal dëkk bi kon nag da ngeen xam ne ku naq ngërëmu Sëñ Tuubaa rek sa aaju faju ci àdduna ak alaaxira te sëñ bi sant nañu gërëm nañu ci liggéey bi xolam sedd taxawaay bu rafet na ci bu baax muy ñaanal sëñ Cheikh jëmb mboolem rakkam yi ànd ak moom yëpp ak ne ci ginnaaw yëpp ak mboolem Cheikh si ak taalibe yi Sëñ Tuubaa yëpp yàlla Sëñ Tuubaa nangu jëf ji tabar ko ca jëf ja seen maam bi tëdd ji daal jëfal Sëñ Tuubaa te lépp di jëf joxe ne bi da ko nangu ndax moom kat lu ne def lu ne jëfal na ko sëriñ bi sëriñ Saliou daana yéem ci lu bari bis mas nañ nettali yoon xam ne sëriñ sa Alima Gueye ma woon ci jataay ba lu ko sëriñ Touba jox di ko ko bindoo di ko ko sottiloo ba noppi na ko sotti ko te bu ko xool Cheikh bi di ko def ndax Moussa muus muus na lool de ci ñoo ko sottee te gisoo jotaay jotaay bu gudd la Cheikh Mouhamadou Fadil agsi bi mu agsee Cheikh Mouhamadou Fadil ne maam Cheikh tey nag dama am tuuti lu ma bëgg a laaj ci suñu waa ji ci sëriñ bi mooy eh, sëñ Touba ma nga xamoon ca Mbàkke Kajoor ak ñi ci njëriñ lu leen wutale bëgguma nag nga wax ma waxi daanu kat Cheikh Ibrahima Thiam ba Thiam mu ne ko jàng Masaalikul Jinaan war nañ jox xadaa il xay Cheikh Mamadou Fadil ne ko dama bëgg nga wax ma wax te tontu ma lu te bañ maa wax waxi tekk boobu ne ko ñaari yi de naa ko ci woon du sopp ko mooy muuraayu bopp bi ak kawar gu weex bi xaw na leen du sopp ko ci woon ndax suñu sëriñ bi génn bi sëriñ bi dee tontu am xel fekk na ñu toog mu boole leen aw ñam Cheikh Ibrahima mënuñu ci jëfandikoo Cheikh Mamadou Fall ni na ko ñëwoon mu la ko xeddu bokk borom naka la sëriñ bi nga tëll booba sëriñ bi bàyyi nga jëfandikoo gura daal di jënd yàbba ji jox ko Cheikh Ibrahima nag amul sawar la daanaka waaye Ibra Fall mi ngi ci njariñ de mooy Ibra Fall moo ci mbàkk bi bon la kon moom njëriñ fa la ko mbiru ci dem itam xam nañ ne sëriñ seex na la mu jësant ndigal ci buntu ba mu ko yettuloo kon Sëriñ Tuubaa dafa nangu def moom sëriñ bi wàcce na ko ay yoon saa su ko wàccee mu ne ko yaa ma xëy ci liggéey yonent bi sallallahu alayhi wa te gisal ko moom wàcc ba tey daa di formuwaat kon yéen itam ci loolu rek ngeen nekk waxtu bu nekk yéen a seen laxasaay man de ci yéen laa ëpp yaakaar yi sama bopp ndax xam naa ne yaakaar leen dara mu may sëñ bi yéen ku ne dara mu may sëñ bi. jërëjëf euh, euh, sëriñ euh, Bassirou Mbacke moom sëriñ Abdoul Khadr Mbacke. Mm. gis nga sëñ Mamour si kaddu yi am solo yi nga xamante yëkkati na ko. Mm. si élément bi nga xamante ni ñu ngi siy jaajëfal bu baax baax nag sëriñ Fallou Fall Mbawor. Mm-hmm. sëñ Fallou Fall moom sëriñ Aliou Fall Mbawor moom maam Cheikh Ibrahima Fall borom mm-hmm. Cheikh Ibrahima Fall point com. Mm-hmm. Ah, jàppale ñu si élément bi bu baax a baax te di ñu jàppale it si jotaay bi bu baax a baax. sëñ Mamour sëñ Bass Abdoul Khadr kaddu kii man dëgg la. waaye am na si foo yang ni yaa ngi koy dégg ba muy wax naan mm-hmm. euh, jële nañ Serigne Abdoul Ahad Mbacké mm-hmm. yal suñu borom dolli ngërëmam mm-hmm. muy wax ni euh, kër Serigne Touba dafa am bañ kër Cheikh Ibrahima bañ mbañum kër Serigne Touba mooy bañ digle waaye mbañum Cheikh Ibrahima mooy bañ a ndigal mel na ni nag ndigal lu mës a kër Serigne Touba tabbi mm-hmm. kër maam Cheikh Ibrahima Fall. Mm-hmm. def nañ ko mu waree. Mm-hmm. waaye dégg nga ko sànq li mu wax nii lu gën a yéeme mooy. waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall duñ dem mukk di sàkku ndigal. dañuy toog di xaar seen buntu ni nga ko waxee woon sànq. waaye ndekete eh, Serigne Touba Xaadim Rasul. maam Cheikh Ibrahima Fall la mujjee ci zahir moom la mujjee maanaam eh, digal moom la mujjee jox ndigal mooy bunt bi mu ko doon yettuloo sëñ Maamu. dia euh, jërëjëf sëñ Aline Badara xam nga dañuy damay sakku man ci mouride yi ak mbollem ku yaakaar Cheikh Ibra ñu ñaanal sëriñ bashir mum sëñ Abdou Khadir sun borom doolu ko fa yagal bu baax baax baax ndax euh ndaw lu mat ndaw la barke Cheikh Ibra Fall waaw ndaw lu mat ndaw la no ngi ñaan sun borom sa borom yagal ko fi te wëral ko amin barke ma ta katnal ko ba lim yene liggeel seigne touba lepp mu liggeel amin liggéeyal ko ndax xam nga limuy wax ni mhm. ci Cheikh Ibra daa doon loo xam ne lu wér la loo xam ne mag ñi dañ koy yàgg a nettali ci Cheikh Ibra Fall te dund ko mhm. te li gën a doy kéemtaan mooy lu mu la nettali lu ëpp ci li muy wax gis nga doomi Sëñ Tubaa ko wax doomi Sëñ Tubaa dégg wax ne sëñ Soy boo ko nettali am li mu wax ne sëñ Abdu Lahat ko wax ak li mu wax ne sëñ Saaliwu ko wax mhm. kon danay da ngay xamee ne kon ndekete doomi Sëñ yi gis nga ñëpp ak li nga xam ne sëñ Falloo ko seere muy jandab loola kon ñoom dañ daan toog di jotaay di waxtaan ci maam Cheikh Ibrahima Fall. di yéemu ci Cheikh Ibrahima. ba ci sëñ Souhaïbou bu waaw ñoom ñëpp dañ daan yéemu ci ndax ba man Baye Assane Diop maa ngi koy ziar bu baax xalifa sëñ Atoumane Diop. Mm-hmm. moom ma wax ne ma bu Cheikh Ibrahima Massane génn ci kër kër Cheikh. jëm si ku tedd ki nee na ma su ma Massane bëgg a gis xar kanam ba damay jiitu ca kanam di doxee gannaaw ndax mën na gis xar kanam bi nee na waaye boo làngee ak Cheikh doo ko gis ndax li ko daan topp ci mbooloo nee na genn kàddu rek lay dégg mooy fal yàgg baax fal yàgg baax. waaw nee na loolu moom ma ko nettali. kon loolu day wax ne waaye sëñ Bas dafa dafa wax lu am solo. Mhm. dafa dafa wax lu am solo ku bëgg Cheikh ba fal la ndax ah, lim seere wax ne seexi Ibra Fall sëñ Abdou Lahad moo waxoon ni kër gi ñaari mbañ la am. Mhm. loolo wax nañu ko ba tey mbañum kër sëñ Touba mooy ñàkk joxe ndigal. Mhm. mbañum mbañum kër Cheikh Ibra mooy ñàkk jëfe ndigal. waaye mucc ngeen ci nag. ndax ki war a jëfe joxe ndigal ci kër sëñ Tuubaa mi ngi joxe ndigal ki ko war a jëfandikoo ci kër Seex mi ngi jëfe mi ngi jëfandikoo kon mm-hmm. loolu moo am te man léegi laa mujj dégg ci làmmuñu sañam di xat yi mu wax ne fii de dañ fay toog rek ngir di di xaar ndigal kese waaw fu fu ñu fu ndigal fekkee rek ñu jóg. de su ko jëli. barki Cheikh Ibra Fall. ci làmmiñam laa ko dégg léegi. léegi ci timis ca Daaru Bayre <laughs> dañ fee toog rek di xaar ndigal fu ñu fu ndigal fekkee rek ñu jóg. kon nga gis na fuñ mëna nek ndigal leen fa ba fuñ mëna nek rek ndigal leen fa ba xel kom sax suma masaan jeex da nañ ci dik sëriñ bi day yone laaj man day yone wax na tole yi na di deglu te mom fi ne toogaayam bob muy tok xel comme suñ da naka ci mëna ne ci waccay bu ko sëñ bi ne won nawet leen bay tole yi mom jekk na du delluwaat mbàkke di wacc xam nga ki nga xam ne buy génn mbàkke day ñàkk ba bo xam na ki nekku fi mom te kat dana la wax leen gis nga lépp Cheikh Ibra Fall la. waxoon naa ko lépp dara lépp pay dem xoolal maanaam day tuxu laa la jubla wax boog tuxu amul lu ñuy fàtte di ko jël si waat mbaa lu ñuy waajale ci kër gi amatu su su xasee fobu bu bu bu bu mën naa dëkk du del siwaat ci kër gi waaye loolu daaloon na Cheikh Ibra Thiès hmm. keroog bi ko Sëñ Touba joxee ndigal mu bàyyi mu war a bàyyi koo Thiès 1915 wala 16 am na ñu wax 15 am na ñu wax 1916 mu war a jóge Thiès ñëw Njaareem ba mu génnee këram gëstuwaatu kër ga warukaay wañ ko dabe ceena ba lañ dabe moom ceena ba ceena ba lañ ko dabe kon moom bu déggee ndigal rek day day jug foofu amul delluwaat di waajal wala jug leen jël leen bagage déedéet moom bu jógee dem na moom moom foo ko fekk day jekk <laughs> Cheikh Ibra foofu la masaani ne waaye ni mu fonke woon digal nag laa lay wax mhm. benn mooy keroog bi ku tedd ki santé bi liggéey sëñ mu Moustapha Fall ba ko Cheikh Ibra yéegee lu mu ko wax ay waaye Moustapha ñee naa la yow mi sëñ liggéey liggéeyloo waaye ko xamoon na soo juree doom mu dox sa diggante sab sa sëñ jar na booy jur doom Cheikh Ibrahima ni mu daan jëfandikoo ndigal ku dut moom ku moom lottu nga ci ndax su masaana dégg ndigal ci Serigne tubaa ndigal bu masaana ñëw xam nga keroog mi neexal sëñ Ibnu Amar mhm. euh, sëñ sëñ Touba daf ko ne demal wooli ma ko ne waye kay wuy sëñ bamba ji rek di tabbi ci noppub Cheikh ba Fall tax na ges na sëñ yaram bay ñu ne Fall mun neexal lin imu eh, diko neexal rek hmm? jeegu yum dox eh. te te bi dox ba ba xol ba namat kay wuy bamba dafa gesu na dom ana imnu hmm. ne ñu ne ko ma nga ca gannaaw mu woko bi mu ko dabee daf ko ne nga ne lo wax mu ne ko bamba deloah. Muna mu ne ges na yaram ñu ne Fall neexal lin imu hmm. waaw te te kàddu sëñ Bamba képp ni muy def ci noppam beneen mbir la <laughs> loolu rek leneen la bi ci des it mooy ni ko sëñ Bass waxee moom la mujj jox ndigal doy na sëkk rek ñu wax ne néeg bi sa ku tedd ki uh, fatoo Cheikh Ibrahima ko kër googu ci njaarim mm-hmm. buñ noppee gis buñ noppee gis ku tedd ki fañ ko noppee gisee Cheikh Ibrahima la ko liggéeyoon ci njaarim moo tax uh, daanaka mun naa leen ne daud ndax sëñ cheikh euh, ma ngi djeglu defena naa mourad Ablaye Mbacke mu sëñ cheikh asufal mhm. wax na ma dama bàyyi cheikh tal galo amna euh, cheikh ibra yónneen bu mu ko mos a ci ku teddi ki mhm. te lola nee ndab lim ko daan togal bis mu ween ko ko nako ko ko mhm. li doy kemtan moy bu ma am foy tek ndab yi waye ma bima koy tek dama am tawfiq feexi bi mu ne ma mu ibra mu ne ko waaw mu ne mun na xam nga Habibullahi mu ne ko waaw ngi koy dégg mu mooy Balla Coro dama lool ma ko nee na keroog bi ma demee daw yooyu Balla Coro nee na dikk diggante bi xëy na bi ma xaw a yàgg delluwaat ci Cheikh Ibra ndeko tax xam naa dafa ko yëg ci baatin rek nee na bi may ma Cheikh Tall mu ne Fall mu ne ma foo nekkoon ma ne ko ku baax ki dee ma yónni woon mu ne maa yónni mu ne ko ah mu maa laggal ci biir toog doom bis ni ki dee kenn dootu la yónni naa doom ku sëñ Bamba yónni kenn waratu ko yónni nee na keroog lu fa ñëw ci xéewal man la ko Seera Fall jox. ndax li ko Serigne Touba waaw ndax li ko Serigne Touba yónni woon kat. nee neena lu ñëw ci xéwal mu naa doom yu leen seex taal sëñ Bamba ko yónni woon kat doom waaw xam nga Seex Ibra moo moo jeex daal waaw li ñuy wax waaw moom daal moom daal moom daal mbiram moo yemut ak dara waaye nag sëñ Touba da koo beroon waaw waaw sëñ sëñ nag noo ko def mu def la li jaajëfal la bu baax a baax sëñ euh, Maamu mm-hmm. xam nga ni euh, kon mu ngi noonu mm-hmm. ndigal yi nga xamante ni mu ngi rotee kër Serigne Touba di tabbi kër maam Cheikh Ibrahima Fall mm-hmm. xam nga ni lu toll ni waajal màggal Touba ñu buub dëkk bépp man li ma gën a yem da ngay foog ni ay euh, mbedd yu mag wala dafa am fu ñu ko beral wala urumu jumaa ji waaye ndekete dëkk bépp Mm-hmm. dëkk bépp la ñuy maasee la ñuy maasee buub mm-hmm. amal loolu sëñ Mamour lu yéeme la bu ñu noppee ñu yeewle waaye da ngay foog ni bu ñu jub màggal lay doon waaye bu ñu màggalee ba noppi it mm-hmm. gàmm ba noppi it ndigal loolu dañ koy yeesalaat ñu taxaw ko ñu dem uh, topp élément bi nga xëy ni uh, sëriñ Fallou Fall moom sëñ Modou Aminta Fall di jëwriñam ñu ngi koy ziar bu baax a baax ak sëñ Moussa Mbar ak mbooleem njabootuk uh, sëñ Modou gi waaye it sëriñ sëñ Fallou Fall ak waaw mu Mbar ñu teew leen si yeewee bu am solo boobu nga xamante ni amoon na keroog ak sëñ Cheikh Abdou Latif waaw di jàmbaar loolu moom mi nga xëy ni moom dégg nga li ko sëñ Bass wax sànq sëñ Cheikh Abdou Latif moom nee na kàddu Baye si làmmalam la njëkk a génnee kon ñu ngi koy jaaw baax a baax ñu ànd ko régie ¡Vamos! baax di sant julli nag lii moom ak mooy njëriñ ndigal mooy xewal te sëñ Modou Fall Fall mbaax ma wax ne kaay la wuyu kaay doon kaay la jël la kaay la jël na ku mënta dem da mel da nga mën a ñàkk te bu nee indi leen ndab bi nag ku indi sa ndab kala woo dal na defal la bëgg ci ndab la liggéey bi nag liggéey la boo xam ne sëñ Tuubaa moo ko santoon murid yëpp sant ko genn kër sant ko wenn sant ñu yaakaar sëñ Tuubaa rek ko santoon ñu yaakaar sëñ Tuubaa nag yaakaar kenn génn ca rawatina nag waa gi gii waaye wala mu bëggoon de moom yéen def ngeen ko yéen waaye sëñ Tuubaa ne ko dafa bëggam de ma def sa bëgg ndax daa mel ni liñ digalewoon dañ koo mënut ndax waa Tuubaa moom daa mel ni ñu ci bari teewuñ ci yéen am na ñuy teew am na ñuy teewul nag day mel ni li kenn du ko mënut Siblaat Mbàkke mu baax mu ne neewoon na ku defal sëñ Tuubaa loo loo man mu defal loo mënut ku defal loo mënut mu defal la jomb kon daa mel ne yéen ñeneen ñeneen lii kenn mënu ko yéen mën ngeen ko def ko yéen kon Sëñ Tuubaa danañ defal li ngeen bëgg lépp Sëñ Modou Fall daana wax ni ndigal lu ne daa am lu àndal su demee ci ñu ko ñu ko joxoon suñ ko jëfee loolu dafay des suñ ko jëfewul nag loolee delloo ca borom mu xam ne jëfewuñ ndigal la waaye ne tey jii tey Cheikh Sidi Matar Mbacke xam na ne la mu ko def ngeen ko kon nag na sant yàlla bu a baax a baax te fet nag te góorgóorlu baax te xam ne lii la ndax ñu digal la nga def ko loolu ñëpp mënu ko waaye kuy ndimbal nag yaa mën lu ñu digal nga def ko tey man nañ fi teew ñëpp na tey ay murid saadix rek fi teew yu góor ak yu jigéen yu mag ak yu ndaw ndax saadix mooy kuy kuy defee lu ñu ko digal lu ne di bàyyi lu ñu ko tere lu ne te def ngeen ko te kenn fekk lu kon loolu moo ne ak saadix mooy dëggal bi nee na maam Cheikh Rafal muy suñu Cheikh mu ngi fa boobu nuyoom ak cantam ak ñaanam du ci loxol jëwriñ ji fi teew muy sëñ Cheikh Mbacke Baye Fall mu sëñ Abdou Latif nuyoo boobu mi ngi koy teg ci loxoom mu tegal ko ci loxol Cheikh Bass mu sëñ Abdou Khadir Mbacke mu tegal ko loxol sëñ Muntaxa jaroon sëñ Sidi Maxtaar Mbàkke ja sëñ Muntaxa nag jotali ko sëñ Sidi Maxtaar Mbàkke ni ko daal mi ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal ndax moom kat li ñuy jëriñ te bàyyi nu fan ne mooy baatum ndigal te waxtu wu ne mu nu koy jox dinu ko dinu boole ay ndimbal ndax bu ñu la ko joxee te dimbaluñu ban man koy day day métti lool Sëñ Abdou baax ma day néew na sëñ Mudu Falilu ñun de suñu ñaari kër yii dañoo am bañ ñoo ko yetti kër ñoo ko yent su ñaari kër yii dañoo am bañ xam nga sëñ touba gi ma ne luy mbañam mu ko loolu Mbàkke su nga xamoon mu jël ko mu ne ko fi ma toog de ko fi doog sëñ touba war a digle digle woo war a tere tere woo ko def lekk nga mbañam kër sëñ Tuubaa yéen seen kaw googu ngeen nekk da muy kër Cheikh rafal li seen mbañ mu ndigal jógee ko sëñ touba ñëw fa te jëfewu leen ko fu ñu ko defee lekk ngeen mbañam ko Cheikh rafal Fall waaye yéen de mbañ mi yéen ko tey yéen yéen de jëfe ngeen digal la kon nag jëra ngeen jëf sëñ sax jëm mi ngi sant julli yëpp sant murid yëpp jël la jënd gi nag sëñ si dama taara Mbàkke mi nga xam ne nag lépp moo ko moo moo ndax moo ko digle ndax kaay la kaay mooy kaay kaay lañ jëfe ndigal rek kaay lañ mooy kaay lañ rek kon nag jëfe ngeen digal la wuy si ngeen kenn ku ne la nga am moom ba indi ko la mu rëy rëy lu ndawe ndawe loo ci bëgg seen ko defal tey jii waaw baax a baax a baax te fet lax nag te wut sëñ bi nag te xam ne kat ñun dañoo moom moomul suñu bopp te dañoo dañoo jaay nag nit ki lam jaay moomatu ko. lu mu jënd la moom noonu suñ jëmm yi Sëñ Tuubaa moom waaye nag nun Sëñ Tuubaa lan am nag ndax noo ko jënd ndax noo noo jënd noo jaayante kon nañ jëmm yi nañ ko defaral Sëñ Tuubaa bu baax a baax kenn kon na xam ne alal Sëñ Tuubaa nga yor jëmm yi nan koy suturaal di ko defar bu baax muy góor di jigéen di mag di ndaw na ne war ma la yaram yi di suturaal yaram yi di ko sàng te niru niru lu ay murit ndax kat am na na rab boo xam niru gëm niru lam doon moo tax ñu koy rey fii ne fii ne unku mi foo gis ndax da nga koy bëgg a rey du unku fii ne li am xonq am naan du mat waaye foo gisee du ko rey ndax daan jaan la te niru niru moo ko waral ñun bokkal di ay mbindeef na ñoo xam ne fii ne boo leen séenee doo leen jaawalee fii naaru ganaar bu jaaroon fee dem da ngaa naaru ganaar nga ne kon itam corde bi ñu war a wardoo muy corde murit muy góor di jigéen nan ko ci ñoom wardoo kuy murit ku ne bëgg niru seefaal da nga def bëgg niru seeraayan faal jigéen ñëpp bëgg a niru maam jaara Bousso waaye doo ko niru ba noppi nag doo ko bëgg a doon ba noppi doo waddu doo solo doo doo doo sural say say loolu niru ko da nga ko kon nan jéem a niru sëñ Tuubaa mii niru Seex Rafal jéem a niru maam jaara Bousso noonu jigéen ñi te am yar ak teggin ak jub lu mën a am na te jubunu leen bëgg si amaguñ ko mbaale si ñu bëgg ñu amagu ko kon nan sax ci ak jub te war ndeko lu ñuy tere lu ne te lu baat bii nag ndax lii nga lan am fi ne nu ngi nii waxtu jot na fi nekk na am na jot na kenn yaakaaroon ne yow la ñuy woo dëgguñu nodd ba tax noo tax duñu lixaam ba tax ñu yaakaar noo tax la waral loolu jàpp nu ko nag mbaa yaakaar ne dañ caa nekkul nag lan ko tax ko nan dëgëral li ñu jàpp muy waatum ndigal bi nam waatum ndigal am nunu waa kër Serigne Fall ko jàpp bu baax am na ñoo xam ne kat ñoom seen wax dañ ko dañ koo jëf ñoom li ñu wax dañ koo jëf ndax wedd nañ yàlla faw wedd yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom yaakaaruñu seen bopp te ëllëg dara ak tey waaye noonu wax ne nag sëñ Tuubaa yaakaar nag ba jox ko suñu bopp nag liñ ci koy jëfee nañ jàpp baat bi bu baax dañu ko jëfe bu baax fu ñu déggatee baat ku yaakaar Serigne Fall foo mën a ne bàyyi la nga jàppoon ñëw wu si ndax noo ko wax jabul nan la suñu bopp àdduna ak alaaxira loolu ndigal nu def ko loolu nu bàyyi ko loolu koo wax kat moo ruy sa bopp dara kon bu buñ na woowatee fu waay mën a ne te yaakaar Serigne Fall bàyyi loo jàppante ne wu si ki nu bu ñu ñëwee dañu wax la mu ñuy doyee bu ñu defee lañ la mu ñuy doyee dañu jox la na jox lan bëggoon kon nag sëñ bi nee na mi ngi sant ñëpp góor ñi jigéen ñi mag ñeen ndaw ñi sëñ si sëñ Cheikh sëñ si sëñ Cheikh Mbacke Baye Fall sëñ Abdou Latif ah ñi nga xam ne yow bokk liggéey bi de noonu lay sant bu baax ci kàddu ko sëñ Cheikh Jëm Fall nag di la ñaan sama borom guddal saw fan guddal saw yaram ba lii nga bëgg a liggéeyal sa wajur yi boo ko liggéeyal sa maam ji sa jëru ji nga bëgg koo liggéeyal liggéey bi nga xam ne moom la digal mu ñaan nga man ko na nga ko bëggee te jëfe ko nañ ko bëgg ñoom ba lakk seen i ngërëm yaa ak sa bokki bàkki bakki yi nga teew fi yëpp ak bokki taalibe bi yëpp mu ngi doon noo ngi sàkku nag nga dimbalul nag lan daa wax sëñ bi rek lu lañ fàttali mu de jenn jàngoro la mu joxe noonu ñëpp noo ko bokk jàngoro yi murid daal mooy suñu bëgg te mënu ko waaw jàngoro ji daal loolu mooy jàngoro ji li suñu bëgg daal bu ñu ko mënut wopp nan waaye suñu ko mënee daal dara méttiwunu wér nan kon ñaanal ba li suñu bëgg nan ko man te di ko jëfee nag te fay may fa nu gudd waa ko wér nag ndax nun de lii li ñu fi bàyyi day mooy liggéeyal seen tuwaar rek ñu bàyyi di ko jaar jëwriñ ñoom mu Cheikh loolu ñaan nag wolof ñaan naan bu nee banku leen socceet moom jekk na waaye noonu de jekk na ci ndigal ngeen jóg noonu bu ngeen doon bu leen faa de lii moom dañ ci am mbégte lool ndax jàpp noonu mukk ne liggéey bi dana àgg tey nun mosul koo xalaat mu ko defoon na ni fi ñuy xeet suba ma ne bi muy xëy am na ko ma digal ko wax dama ko noonu bu subaa su ñuy xeet daan la wax bu daan la wax fu ñuy jëm nga tàngal na ko fa ko fa kon kooku xaar duloon dana wàcc tey du ñëw ban ni dañuy wàcc ci ngoon gi mbaa ci suba gi xanaa dañuy dem ba jënd mayutul ko mbaa ñun bu kat yére wàcc leen waaye ñun kat amoon wax du ñëw ak wu ñuy dem li ñu woon ñu wusi rek li fekk noppi woon nag duñ delluwaat mbaa ñu joxaat ndigal lañ jël lañ fa woon delloon fa ñu jógoon kon na sëñ Cheikh ngi sant yàlla bu baax sant suñu bokki tele bi nga xam ne ko moom liggéey bi itam moo ngi sant ñëpp waaye mën a bàyyi koo gis nañ la mënoo lim dëkk yi mënoo lim kër yi mënoo lim nit ñi waaye ñu seen yaakaar nañ si rafet la ñëpp wusi woon nañ bi ñëwee itam parce que mukk li ngeen bëgg dewuñu ko ak fu may mën ko rek la suñu bëggoon moo tax nga ñëw kon noonu ñaan saafara mi nga xam ne aji yëpp moo koy faj di ko def lu fay indi woon ci ay jàngoro yàlla na ko saafara lu fay indi woon ci ajo yàlla nañu la ko fajal suñu bëgg yëpp seen tubaab yàlla nañu ko defal yàgg fi lool te ànd ko wér noo ngi jégalu nag ci wax ji ndax kàddu gu neexul te leerul te mu jubut waaye lu ci lu ci noonu ñii la waaye suñu sax jëmbut la nu waxoon moom ëpp na léegi kon nag sunu kilifa yaa ngi nii teew noo ngi leen jégalu muy suñu sax Ndiaye Mbeng suñu sax suñu sax Assou Ndiaye suñu Moustapha Fall mu suñu Mbacke Fall ñun ñëpp ñëpp ngi nii teew kon nag sant baax kàddu gi moom day kàddu ndigal rek ndigal nag bu ñu la ko joxee moom jëfe ga topp la waaye bu ñu la ko joxul nag jëfe ak mooy la kon nag li ñu doon def jëfe ndigal la doon def di ko jéem nu ngi bàllam ñu baax nag te bàll ñu baax ñaan sa borom dimbal ba ndigal lu ñëw yàlla na ko jéego te jëfe ko yàgg fi lool te wér nag nañ fi yàgg lool te wér rek si Sëriñ Matar Mbàkke noo ñaan mu yàgg fi lool te wér di darajey Serigne Fall waaye maam Serigne Fall mi fi nekkit noo ngi ñaan mu yàgg fi lool te ak noonu murid yëpp jërë ngeen jëf jërëjëf sëñ sëñ Cheikh noo ko jégalu waaw jërëjëf gàtt kàddu yi nag gàtt na waaye kàddu yi li mu bëggoon wax lépp mënu ko wax ndax su ma xool sedd tey sëriñ bi maag sama bokk yu baax yi ma àndal sama bokk yu jëwriñ nu ànd liggéey bi teew fii teewal fi sëñ Sidil Moxtaar ak jëwriñam yu baax yi nu ngi yëkkati nu yóbbu sëriñ bi cantam ak ngërëmam di ko teg ci sëriñ Cheikh sa loxo ñaagale ko ci sëriñ Cheikh jëmb delloo siwaat ko ci kilifa yi fi daje yëpp ñaan ñu jàllale ko it ci bokki taalibe yi fi daje yëpp dafa mel ne dañ dul mën a ñàkk góorgóorlu wax ay kàddu yu gàtt rek waaye dafa mel ne Sëriñ farlu liñ fi waroon wax lépp wax na ko waaye liñ fi waroon def lépp def na ko ndax loolu bu ma ko waxee li ma ci jublu mooy dafa mel ne murit moom dana toll foo xam ne war na am lu mu yëg te yëg-yëg yooyu nu war a yëg yëpp itam dafa mel ne yëgaale nañu ko loolu nu itam am nañ ci lu mu yëg te maa ngi ko koy junj léegi laataa ñuy tàmbali waxtaan bi sax jataay bi ku fi toog faaw nga am loo yëg ndax lépp day sëriñ bi ma ne ko daa mel ni sëriñ Tuubaa taa toog nee ci kanam Cheikh Ibra toog ci ginnaawam nun nu toog ci seen ginnaaw nun yëpp jataay bi loolu rek laa fi doon yëg kon dafa mel ne suñu fàllu dañoo yëgaale dafa mel ne bu yëg amee moom jërëtul wax di bareete ndax li am solo lépp mi ngi ci biir yëg-yëg bi moom mooy mi ngi ci xol yi mu ngi ci pësteef yi mi ngi ci yéene yi loolu mooy la ci am solo xanaa rek ak cant rek lañ ci dolliwaat cant gi moom danañ njëkk jottali cantuk sëriñ bi mu jëm ci murit yëpp mu beral ci cant suñu seex jëmb ak njabootam lu tax ba ñu yónni yónni woon nañu ci murit yëpp waaye beraloon nañ ci ab yónnee Cheikh Ibra Fall te loolu itam defe naa ne fu mu ab murit fu mu nekk lu mu sori sori dana xam ne di liggéeyal sëriñ bi Cheikh Ibra di sa jëwriñ loolu defe naa ne murit bu nekk dana ko war a bëgg dana ko war a xemmeem dana ko war a yittewoo ndax Cheikh Ibra kat ñam doon jàngal nu ñuy liggéeyale sëriñ bi ñooñu du ñoon ay yaafus xam naa ñam nekkandoo ca daara ja wala ñam àndoon di liggéeyal Serigne Touba te ñoom ñu nangu woon mu won leen nu ñuy liggéeyee ñooñee du ñoon ay yaafus képp ko ne xam na loola kon ba nëgën itam loolee ngay liggéeyal Serigne Touba Seex bi di sa jëwriñ yaakaar naa murit bu nekk war naa xemmeem loolu wala war naa mën a bëgg loolu war naa mën a xam ne lool du yaafus du des ginnaaw ak tege ca yoon wala ñu koy firee kon nag sëriñ bi ni ko sëriñ Fallou waxee rek sëriñ Sidil Moxtaar la mu bëggoon defal nañ ko kon defal nañ sëriñ Touba la mu santaane woon kon faaw sëriñ Touba defal nu li nu bëgg sëriñ Touba moom moom lépp moo am lépp xam lépp itam te dégg naa ne Mamor Jaara ba muy dajalee ñu njëkk ànd ak sëriñ bi di waxtaan ak ñoom booba jataay li xawma bi Ibra bokkoon na ci am déet waaye ñu njëkk ñu bari bokkoon na ci te defe naa ne booba bi ñuy door a sañc Tuubaa gii la ni sëñ bi doon def ñuy am ay fan duñ ko gis wax nañ ma ne julli na géey ware fa sa Mbàkke ñëw dajale leen fii ci Tuubaa xamal leen ki ngeen àndal woowu leen ba noppi door a wuti nu leen di lijjantee daa am lim leen di fayee ba noppi door leen woo kon na ngeen xam ki ngeen àndal kum doon kon nag defe naa ne booba ñi àndoon ak sëriñ bi ak ñi doon jëflante ak sëriñ bi ak saa bi ma doon wane ni ñuy liggéey la sëriñ bi xamoon nañ ki ñu àndal kookee ba nëgë ni moo fi nekk dara soppi ku wujje dara wàññi ku wujje dara demu ci fenn sëriñ bi ci boppam moo yoral ab liggéeyam boppam moo yoral ab añam boppam di ko añal ñi muy liggéeyloo di ko añal njaboot gi te boobee muy ñëw te am ko ba noppi li mu fi liggéeyaat li ci li ñu ci mën a gis ci suñuy ci suñuy bët mu liggéey ko ci Tuubaa gii liggéey ko ci Jolof gee liggéey ko ci tukki ba ñëw liggéeyaat ko ci tukki ba ci Mauritanie liggéey ko ci Thiène liggéeyaat ko ci Njaareem ba ba muy wàcc mësa noppul te loolee lépp noonu rek a taxoon dimbale bindee fi rek taxoon bi muy ñëw rek liggéeyam ak boroomam noppi woon na ci kon kooku bu nu suñ borom dimbalee delloo nu ci biiram defal nu tawfeex jooju tawfeex ji mënuñu coo sant suñu boroom lu ko lu mu yellool mënuñ cee defal sëriñ bi lu tolloog loola waaye lii nu def nag kenn mënu ko weesu mooy jaayante jaayante gu njëkk gi te mooy jaayante gii mooy joxe suñu lépp ndax ba alxuraan di wax ne la ishtara min al muminina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannata ñooña dañoo boole woon lañ am lépp seen i seen i olal seen lu mu mën a doon jaay ko ci yonent bi ngir seen borom su borom nangul leen ko wax ne suñu borom lam leen cee fayee mooy àjjana waaye damay dégg sëriñ Mountakha di wax ne góor yàlla yi kat ñoom àjjana taxu leen di jaamu ngërëmul yàlla moo leen tax di jaamu yàlla te dafa mel ne baatum ngërëmul yàlla boobu moom dañu ko daal taqalee rek liggéeyam sëñ Tuubaa te loolu kat Seex Ibra moo ko jàngale woon loolu moo xam ne kuy liggéeyal sëñ Tuubaa ngërëmul yàlla nga war a bëgg te ngërëmul yàlla loolu nag mooy li gën a kawe ci ab jullit di sako diggam ak boroomam te loolu Seex Ibra mënu xamaloon ne baatub ngërëm boobu mook baatub tarbiya ñoo fi ànd ñoom kuy tarbiya wu yitte ji nga gën a am ji gën a sori mooy nga am ngërëm kon liggéey boobu mooy liggéey bii nañ gëm ne dañ noo dimbale nañ gëm ne dañ noo gàttandoo nañ gëm ne dañ fagul fàggul tawfeex ju réy réy réy moonu may lii jataay bii nag yeneen tawfeex dajawaat ci moy la ma waxoon seigne Fallou rek buñ wo témèr jox kenn nit nako téel témèr bi ku ñëw jox ko ben su fekkee fukk rek avez ñëw ne da ngay am fukk kenn ku ne da nga wees ben kon nak vous seen jataay vous té dañ ñoo faggul fukk yi katandunu yombalal na ndax seigne Fallou dama passé rek gën vous sori waye vous mu def man mako ko gëna def ndax bi ñuy song liggéey bi am na jaaxle goo xam ne jàppoon naa ne du mën a yombe nii gàttandu googu la yëg ab yëg-yëgam daa gën a sori sama yëg-yëg waaye maa waroon na gën a yëg lool fi mu nekk maa fooroon de maa ko waroon a wees ndax jàpp naa ne man lañ gàttandu jàpp naa ne man lañ dimbale jàpp liggéey bi lu ci def man lañ ko naa ci jaaxle loolu bëkk bi kon bu demee nii dañ ñoo gàttandu ñëpp waaye jàpp naa ne loolu man lañ ci dimbale man lañ ko dimbalee man lañ ko gàttandoo waaye nag xam nañ ne ki nuy gàttandoo ki yu fàggul dafa am lépp waajalal nu ko dimbalee nu ko fas na ko yéene defal moo tax mu demee nii kon alhamdulilah yàlla nañ ko yaakaar yàlla nañu dimbale ban yàlla ko ànd yàlla nañ fi nekk nanu wér nanu mucc nanu am xéewal ba mën a sax ci liggéey bi sëriñ Cheikh ñaan googu yi noo ngi cay ci jiitalee sëriñ Sidi Moxtaar sun sun sun jëwriñ ji noo ngi ci jiital sëriñ Cheikh jëmm di ci jiital njaboot gépp ñun ñii fi daje yàlla nañ nu beral loxo يلا نبرا بيرال لوخو يلا نبرا بيرال لوخو با فاو جيرجن جيف السلام عليكم ورحمه الله مبارك تعالى لوخي سي بيان تعالى لوخي سي بيان تعالى لوخي دي واخ امين نك امين موي نك نياندي تعالى لوخي سي نك نيان امين نرايو نرايو suuraale kon sëñ Mamour euh, alhamdulilah rabbil alamin di ziar bu baax a baax sëriñ Cheikh Abdoul Latif mi nga xëy ni sëñ Cheikh Baye Fall ñu ngi koy bu baax a baax wax dëgg yàlla di di di ziar bu baax sëñ Fallum sëñ Mouda Aminta nga gis euh, maanaam Pastef geeg dogu gi euh, ci ci ci kaddu yi rek ndeysaan Pastef yi daf see xew mm-hmm. daf see daf see feeñ bu baax a baax waaye mm-hmm. jotaay bu murite sëñ Mamour mm-hmm. ndeysaan xam nga jotaay bi ñu ngi ciy ziar bu baax nag Cheikh Mbacke Samb. ndeysaan eh, suñu jàmbaar di nekk foofu ci Touba ak sëñ Abdou Ndiaye ak mboolem ñi mu àndal liggéey foofu yëpp mhm. nekkal fa Lamp fal mhm. di jàmbaar ndeysaan moom saa su ne du tàyyi du tokki buur waaw buur ma ko waaw <laughs> xam naa buñ ne buñ ne buur rek moom boo ko déggee dana dana xam ñu xew waaw <laughs> tuwarka la waaye lii rek sëñ Alim Badara day mbégte mhm. ndax xam nga ni ko sëñ Bass Abdou Khadir waxee léegi rek sëñ Cheikh Mbacke Abdou Latif tam ñu wax ko mooy liñ day wax saa rek mooy pëseefub Cheikh ibrahim mo yem ku ne man pass pass bi batay lolou dafa feeñ ci njabot gi ndax xam nga seigne Fallou gis nga euh, mom day ne ci bir mbale mi day ne ci bir pousser bi te nak dana la wax len gis na jouru mbale mu njëkk mi mo xam après magal mo xam avant magal waye jour bu njëkk bi marché rek manam fekke ko la jar lu ne la marché Ocass mhm. waaw marché Ocass rek la fay rek bobu benen bir la wax deug waaw te foo ko fekk ci poseer bi ànd ak murit yi ndeysaan mm-hmm. taalibe yi nga xam ni ñi nga xam ne mën nañ ne rek sëñ Modou Aminta moo moo leen tàggat waaw ci ñu doon jàmbar dëgg dëgg dëgg ndeysaan di mm-hmm. feeñal seen yéen ak seen pas-pas ci liggéey bi duñ toq mm-hmm. duñ noppalu Euh, mën nañ ci tudd ku ci mel ne sëñ Mouhamed Diop ku ci mel ne ah, sëñ Mounda Diop Baye Fall waaw ah, ku ci mel ne sëñ Mor Faye ku ci mel ne sëñ Malick Fall ku ci mel ne sëñ Aliou Ñing mhm. waaw ñooñu ñooñu daanaka dama ci lim ñooñu sax waaye duñ jeex mhm. waaye dama ci lim ñooñu rek nag rawatina nag ñi nga xam ni moom ay bay Fallu Québec ñoom ñëpp ndeysaan ñuy jàmbaar saa su ne sëñ Fallu Cuun foo leen fekk rek mhm. ñu ne ci gannaaw sëriñ bi ànd ak sëñ Moussa Fall Mbara ak sëñ Fallu waaye répp di jëwee ni liggéey bi lii rek day wane ne kon sëñ Alioune Badara pas-pas rek am solo te Cheikh Fall ci pas la daan jëf moom jëfam yéene ji muy àndal maanaam moo moo moo moo jeex fi ne ci mën naa leen ne daanaka gisaat ko moo yombatul. waaw waaye li ma la wax léegi rek moom daa beroon sëriñ bi su daan jox sëriñ bi li ko gën lay jox li ko gën li gën lay sëriñ Tuubaa waaw su daan liggéey tamit lu ko lu la gën la koy liggéeyal mm-hmm. waaw te itam ku joxe ba jël sa taaw joxe deseetoo dara te Cheikh ne woon sëñ tubaa sa lépp nga koy jox. Mhm. mu jox la lennam nga gën a ko ñëpp. mu jox la lennam nga gën a ko ñëpp nga gën a ko sëñ Mamour loolu dégg nañ ko bu baax a baax. Mhm. waaye ñi nga xamante ni yàlla dogal na ni. Mhm. màggal moo leen di yóbbu. Touba euh, nañ jàpp ni. laataa màggal nii la ñuy taxawoo dëkk bu sell ba di Touba. bale ko ba mu set buub ko. bu ñu màggalee ba noppi it foo xamante ay millions yi doomu aadama ñoo fay ñoo fay daje xam nga dina am lu ñu fa baax. bu ñu noppee it ñu toppaat seen ginnaaw balewaat ko buub ko loolu yëpp si ndigalu di ndigal luy jógee kër Serigne Touba mm-hmm. root si murit yi waaye mm-hmm. kenn jiitu si waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall noonu nag lañ ko yàgg di taxawee mm-hmm. jamonoy Serigne Saliou Mbacké yàlla na suñu borom dolli ngërëmam euh, xel kom kenn du leen ci mën dinañ dem sax fàttaliku xel kom 2005. Euh, Serigne Modou Aminta Fall. ak mboolem njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall gi. taxawaay bu am solo bi nga xam moom lañ fa taxawoon. ñu ànd ak waa régie.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 la la la la mu liggéey bu jafe liggéey bu jafe boobu na boo xamee ni sëñ bi woote na fi ba ñi nga xam ne ñi ñoom la ñu bokkal sëriñ bi yëpp daje fi euh, bu ñu fi liggéeyee ba dem euh, ñoo fi des nag ñoom di desewaat liggéey bi muy dongay tarbiya yi nekk ci daara yi ñoom léegi bu ñu yoree li ñu yor di ko liggéey ñoom ñoo nemmeeku ni li gën li gën noppal tey musal seen liggéey yi liggéey seen yëre yi liggéey loolu day euh, waa Kër Cheikh Ibrahima yi nga xam ne ñii ñoo ko ñu euh, moo tax ñu taamu nag Baye Fall yi wax nañ ne fu Baye Fall yi jaar daal moom mënees na ko liggéey guddi mënees na ko liggéey bëccëg nde sëriñ bi kat muy sëriñ Saliou Mbacké dafa waxoon sëriñ bi ci sama kanam mu nu toog mu xamal ko ni ko foofee ca xel koom la ma leen ko doon liggéey loolu mat na waaye nag li gën si waatu ren jii nag li tax moo santaat moo santaat koko moo di ñoo xam ne ñoo fi nekk yoo di dongoy talbi ñoom ñoo taamoo liggéeyu waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall ci wàll wii nga xam ne yii yor nañu ko muy jumtuwaay yu bees te bëgguñu dara ayib ci loolu moo waral ñu ko doon ñu ñëw ñoo ko tawat sëriñ sëriñ bi itam wax ko sëriñ woo sëriñ bi sant ko mu ànd kooku nan ñoom ko naan àndal ñoom ko naan àndal mooy ñu bokk ak Cheikh Ibrahima rek di ay rakam ay doomam ak cheikh yi nga xam ne yii Cheikh Ibrahima moo seexal seen maam mbaa seen baay ñoom ñëpp ñu ànd nag moo tax liggéey bi mel nii mu mel gaawi nii mu gaawee.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 ñaanalaat bu baax a baax ak ziar euh, sëriñ Modou Fallilu Fall di ñaan suñu borom dool dolli ngërëmam te yàggal fii njabootam gi sëñ Falloum sëñ Modou Aminta sëñ Moustapha Mbar ak mboolem seeni i rek ak mbokki taalibe yi euh, euh, sëñ Mamour lii doon lenn rek si Xelkom 2005 jàmbaari Xelkom mm-hmm. loo ñu mën a fàttali si si Xelkom gi ak ya ko weesu sëñ Mamour ndax suñu borom dogal na ni mm-hmm. bañ koy wootee mm-hmm. ba léegi yaakaar naa ne amul benn boo xam ne suñu borom dogal na ni seen jëmm yu wuute na ko waaw moom de xam naa ne xel koom moom sa dafa dogal daanaka dañu ndax duñu ay mag waaye dañoo gudd ah. judd rek màgg tuuti ñu tombe ci bi ñu tombe it ñu bokk ci kër gi nga xam ne suñ masaan jot ndigal rek ñoom itam dañuy buubu kenn suñu tudd dellusiwaat ndigal laagul ni ko suñ loolu moo tax daanaka mun naa ne ne fa lañ màggi <laughs> waaw fa lañ fa lañ màggi tabaski sax fekk na ba tàyyi kay du jeex du xaaj moo tax lii moom lii rek lii lii rek eh, teewee naa ko lii xew nii waaw lii ab yeewee la woon bu yéeme waaw booba la liggéey bi mat sëriñ bi di yeewee waaye li ci gën a doy kéemtaan rek eh, mooy mbooleem buntu kër Cheikh Ibra yëpp a ngi teew ci kanamu sëñ mu ramante waaw di ci ziar bu baax a baax nag mboolem njaboot gi yëpp. Mhm. maam ni ñu ko waxee waaye di beral ziar nak Serigne Cheikh Fall Mbor waaw di ñaan suñu borom doolu ko fa yagal bu baaxa baaxa baax Serigne Cheikh Fall Mbor ak Serigne mourab lay ñoom ñep ak Serigne Amdi Modou Mbenda di ko hmm. ziar bu baaxa baax serigne a eh, fall Serigne Bassirou Fall di ñaan sa borom defal ko wér ak bu fan ci barke Cheikh Fall di ci ziar serigne serigne sëñ Alé Diagne moom fu ma gis sëñ Fall rek sama mom mom mom mom moom mooy <laughs> moom buntam serigne Fall mom serigne Abdou Sakour ak njabootu serigne Abdou Sakour gi yep nak ñoom di len ziar bu baaxa baax waye li mom dafa doon loo xam ne euh, mbégte la mbégte la ndax ni nga gisee sëñ Mourab laay ngi noonu sës ci sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ Mourabinta waaw féete ko wetuk ndijoor euh, sëñ Cheikh Fall jëmmu féete ko wetuk càmmoñ moog sëñ son bu Fall mu sëñ Mourou Moussa Fall mhm. waaye sëñ Abdourahim di ñaan sa borom yokk ay lem taas ci barkem moom xam nga moo doon yëkkati kàddu yi mhm. euh, sëñ Abdourahim Fall moom sëñ Mourou Moustapha Fall kon nga gis na buntu kër xam nga daanaka bu dee xool di teew ci kanam sëriñ bi yëpp njabootu Cheikh Ibrahim lañ mhm. waaw loolu rek loolu rek loolu rek dafa doy sëkk maanaam ndax eh, lu rafet la tey tam mbégte la daal mbégte la di ñaan sans borom eh, dool leer yi sëñ Fallou Fatikan mm-hmm. waaw moom it mu ngi ci jotaay bi mm-hmm. sëñ Fallou Fatikan sans borom yokk leeram tas ñu ci barkeem waaye su waaye suñu mooy jur itam muy sëñ Baara Ndaw di ñaan sans borom yokk leeram tas ñu ci barkeem ndax moom it gis naa ko ci jotaay bi waaw moom gis naa ko ci jotaay bi moom itam ma nga fa woon ak mboolem njabootu Baye Cheikh Gueye kon daal lii moom signalé Badara day loo xam ne eh, daanaka daal mënuñu cee yaatal ndax jotaay baa ngi nii moom mën naa commentaire boppam waaw lu doy kéemtaan loo xam ne nii lañ ko daan liggéey moom du fi xaj hmm. xel ko moom ay jotaay jotaay la ndax dafa jot sëkk ñu delloo si nag eh, waar wa maanaam hmm. delloo si waat liggéey bi waaw fi fi liggéey bi tolloon ndax day liggéey boo xam ne pas-pas rek la xam nga nag àll bu mel noonu hmm. muy daanaka mën na leen ne eh, di ay daar fukki daar ak juróom la ko tàmbalee janatu maxwa ba tay ba muy fukki daar ak juróom te daanaka ba néew na wala boog amul foofa Baye Fall yi jaarut waaw te fuñ jaar ni ko sëñ Abdourahim waxee fa Baye Fall yi jaar daal doo ngay sàkku ne wax nañ ne fa Baye Fall jaar mu na koo liggéey liggéey guddi mu na koo liggéey ba cëkk kon day wane ne Baye Fall yi ñoom ñooy leeral ñoo ñooy ñooy leeral yoon bi waaw waaye waaye ne sëñ Tuubaa Cheikh waxoon na ne Ibra Fall kat fu mu bëtt fu nekk nañ ko yett am punt ndax fu mu jaar aw yoon la waaw kay loolu waxoon na ko ci njaarim <laughs> ndeysaan ndeysaan sëñ Mamour loolu moom tubaarkàlla macha allah xel ko ma ngi noonu Mm-hmm. xam nga lii euh, di ko di ko di ko fàttali. Mm-hmm. dafay am solo alquran daf ni wa zakkir fa inna zikra tanfaul muminin mm-hmm. euh, kon nun fàttaliku yi mooy mooy mooy dundalaat suñu xol dinu jëriñ di yokk suñu pas-pas ndax xool suñ Moodu Aminte suñ Moodu Fallu Fall ni mu toogee njaboot gépp wër ko njaboot gépp wër ko muy maam Cheikh Ibrahima Fall Euh, jëlee ndigal si Serigne tubaa mm-hmm. def ko ni mu waree. Mm-hmm. jëlaat ndigal si Serigne Saliou ngir mu santal ko njaboot gi. Mm-hmm. mu yëkkati ndigal loolu teg ko si euh, Serigne Abdourahim Fall ni nga ko waxee yàlla sunu borom yokki leeram. yokki ngërëmam bu wër. mu mu jotal ko ni mu waree. di di ñaan Serigne Saliou Fat Sow mu yàgg fi loolu tànn ak wër. ndax Serigne Abdourahim fi mu taxawoon Serigne Modou Aminta man moom rek laay gis Serigne Saliou Fall Fat Sow. ci eh, kanamu sëñ Cheikh eh, jëmb si mm-hmm. jorai bu ame, ni muy mm-hmm. yëkkatee kàddu mm-hmm. eh, si si si jotaay yu yu yu yu mag yi jotaay yu ndigal yi kon di leen ñaanal bu baax a baax mu mu doon loo xëy ni woon ni ku si nekk ñëw nga ak sag amuñu guddi amuñu bëccëg bis yaa may nettali ni ma xel kom goo xëy tabaski la xew la tabaski ñu ngi soli yére ñu ngi ngi nekk waaye bis boobu yaakaar naa ni xamu leen ni sax. Euh, euh, maanaam euh, am na lu xew ndax yéen a ngi si col force yi. di ko ah, gars yi di wax yow mbaxal yeeg ñoom seen. waaye loolu yëpp rek ngir ngir ngir ngir ngir ndigal. Mm. may fàttali ko bis mu may nettali sëñ ñu Aminta guddi gi nga xamante ni taw na fa taw bu yëpp. mu ne mu ne guddi tey gi ku foofa naan am nga garaatu murit saadix. guddi googu yaa nga fa yàlla yàlla yàlla nañ leen si taas. barke di di lu am solo. moom mm. sëñ Maodo Aminta yàlla na suñu borom dolli ngërëmam. te mm. àggal fi njabootam gii sëñ maamu dañuy barkeelu lenn sax si sëñ Maodo Aminta mm. nga xëy ni liggéey bi mm-hmm. ak ak ak ak ak lu lu mu jëm mag jëm mag mm-hmm. mu ngi koy mu ngi ko daan wéyal fépp si si biir réew mi ci biti réew ba ci biti réew ndeysaan at bi mu demee itali mm-hmm. euh, bokk ci bokk ci tukkeem yu mujj ndeysaan 2005 sax la tombeeloon euh, bu dul gannaaw xel xelkom bi di après euh, gannaaw xel xelkom la woon wala laataa xelkom demoon nemmeeku mbokki taalibe yi foofu si itali waaye pas-pas beeg pas-pas bi du mos a soppiku ñu ànd ak kon mbokki seetaan ko te ñëw dellu si les si waxtaan wi. Ibrahima Fall. li ci leeroo Makka lay doon mbaatu ba penku bee li ci leer Fall Makka lay doon mbaatu ba la ilaha illallah Fall la ilaha sigaretta la ilaha illallah borom baax daal nga yëngoo di ne yow la faal xayru na fi yow la mujjee feeñ jëkkay bamba man jaa rabu say njaay gën góor yabu lay faal góor xam la jaay li du kenn yow la ndimbalooy faal yërmande doolay biir faal ak bitte faal may nu leer may nu tunangoon gor nga baax bal xotti baax jàjji yaa ko yeyoo gor nga baax bal yaa ko ni balooy fal yërmande doole bi ak biteen la la faal la ilaha illa la la ilaha illa la faal la ilaha illa noo ngi ñaan faal dellu ñaan faal yàlla ñaan yi nangoo may baal faal may leer may nu nangoo doole baal ngërëmooy faal mbaate leer yu jëndoo doole baal ngërëm faal mbaate leer digandoo dalal leen loxo la ilaha illallah fala ilaha bañi noon faal di sore faal laa ilaha illallah laa ilaha illallah laa ilaha illallah faal laa ilaha illallah laa ilaha illallah faal laa ilaha illallah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 laa ilaaha illallah laa baal laa ilaaha illallah baal ba muy dooroo bañi noon faal di sorey faal laa ilaaha illallah amul fenn fu des les rajo Carabiri ñëpp a màbb ak milletu ñëpp a màbb ñëw di siyaari si ku baax ku tedd kii nga xam ne moo fi maam Cheikh Ibrahima Fall tey di sëñ Mourou Fadilou Fall yal na yàlla def mu yàgg fi lool ci ànd ak wér moog Cheikh Saliou Mbacké sangam mu tedd di sunu sang nun ñëpp eh, li nga xam ne lii itam moom lay dox di liggéeyal Serigne Touba di liggéeyal maam Cheikh Ibrahima Fall di wéy ci ndigal yàlla na nu ko bokk moom te mu yàgg lool. boo xam ne bu doon suñu sago euh, auditeur rajo Lamfal FM yëpp euh, daan ko déglu muy euh, soxna soo xam ne waa réew mi la. Euh, nit ku weex la nit ñu weex ñi bari nañ fi tey xam naa balaa yàgg suñu confrère euh, sëñ Moussa Mbaye euh, te teewal fi itam RTS mi ngi ànd ak moom ay tubaab équipe télévision bu am solo boo xam ne jombul incha allah daan leen jàlle ñoom ci antenne bi waaye soxna si moom dafa am lu mu nettali léegi xam naa li ñuy wax naan nettali am na kum ko nettali ci mbokk yi ñu waaw mu wax ko directement bu mën nañ ko wax directement ma traduire ko siamo in diretta radio Radio Lamfasia è una radio che si trasmette un po' dappertutto. Eh, volevamo, volevamo sì, che piacere, se potete eh, dirmi perché siete qui. Léegi maa ngi koy laaj wax naa ko ni ko ci rajo la ñu nekk maa ngi koy laaj itam lan siamo di ai progettari, non dolli parliamo. Va bene, fai in italiano. Da signor bello giallo. Sì. Ho raccontato un sogno. Da signor bello giallo, da vacna ginne bicaroia, da foca da gatto, non quadro da guerra. Dentro un luogo molto luminoso. nee na dafa gént euh, jëmm ju tedd jëmm ju ànd ak leer ci bërëb boo xam ne itam ay leer képp la fa gis. E poi na mu gis nataal bi ci biir gént googu gis nataal boobu nataal bi jox ko ki nga xam ne mooy Cheikh Ahmadou Bamba. Eh, eh, non so cosa vuol dire, però penso che in qualche modo è un richiamo e vorrei tanto andare a Cuba per sapere qualcosa di più. nee na xamul lan la waaye jàpp na ni sëriñ bi moo koy woo ba tax na bëgg na eh, dem Touba ba xam lan mooy Touba ak kan mooy sëriñ Touba. Euh, jërëjëf euh, sëñ Mamour kon euh, mm-hmm. lenn rek doon ko barkeelu si jëmm ji tedd ji di sëriñ Fàllu moom sëñ sëñ sëñ Mourou Aminta sëñ Mourou mm-hmm. Fàllu Fall mm-hmm. dina ko kon bokk na ni nga ko waxee tukkam yi mujj yi nga xam ne def na ko si biti réew kon nga xam ni moom moo dundam gépp rek fi waajuram yi tedd yi Euh, jaaroon foofu rek la jaar di fàttaliku mooy euh, kon ki njëlbeen si euh, surtout maam Cheikh Ibrahima Fall yi nga xamante toog nañ mm. jotaay ak maam Cheikh Ibrahima Fall mm. topp sëñ Cheikh jëmb di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te ànd ak wér seen waajur tegoon seen tànk rek lañ teg seen mm-hmm. kon mbir maa ngi nii wane ni ndigal rek moo am solo te waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall fa lañ teg seen i mm-hmm. te it ni ko sëñ Bass Abdou Khadre waxee sànq mm-hmm. du ñu a jóg di laaj ndigal dañuy toog saa su ne fépp fu ñu toog it ndigal moo leen fu bàyyi ni nga ko waxee ni sëñ am di moom la wax sëñ Mamour si kàddu yu am solo looy tàggoo. <laughs> tubaarkal euh, jërëjëf sëñ Alioune Badara di jaajëfal bu baax a baax ñaanal sëñ Mourou Aminta sama borom yokk leeram taas ci barkeem ni nga ko waxee sunu bàjjen soxna muy Mbàkke moom itam gis nga ànd ci euh, tukki bi ak sëñ Fallou sëñ Mourou Aminta waaye gis nga murit yi ku ci mel ne Alaaji Ibrahima Wadd ak su mel ne sëñ sëñ Mouhamed Diop ak ñoom ñëpp ndeysaan ñu ay jàmbaar yoo xam fu sëñ masa dem rek waaye di ziar baax waa fédération Italie bi mhm. sëñ Saliou Ndiaye jiital leen fédération Mame Cheikh Ibrahima Fall bi nekk Italie sëñ Saliou Ndiaye sëñ Bari Ndiaye ndeysaan ñuy jàmbaar dëgg nag mhm. jamono yi rek def nañ ndaje ci kanamu sëñ Cheikh jëmm xam naa du ñàkk fan yi incha allah des na ko gën a yaatal bu baax a baax di leen ziar bu baax a baax nag tey ñaan sama borom dafa leen dam xam nga Baye Fall yi foofu jàmbaar rek waa Italie France euh, Allemagne Amérique fépp ba ba woote di teewloo jotaay bu baax a baax Arabie Saoudite fépp rek mhm. di jaajëfal bu baax mboolem muri waaye di ziar bu baax sëñ Modou Fall mhm. moom sëñ am di Yacine Fall ak waa daayira Jazbul Ba mhm. euh, finance moom itam di ko ziar bu baax ak murid ba ñuy wax Fodé Ndaw waaw moom itam murid la di ko ziar bu baax a baax nag sëñ Assane Awa Diop moom sëñ Modou Aminta waaw gis na moom tey moom moo a solal moom waaw sëñ Assane Fall koy ziar baax a baax euh, soxna Mbenn Fall fàttewuñ ko waaye sëñ Ablaye Fall itam soxna Ndeye Penda ñoom ñëpp di leen ziar foofu ci eh, paalen Mbacke ngi njabootu euh, sëñ Modou Amine Tafal waaye di bu baax a baax itam yaa sooda xumma mhm. suma wayjur bu baax woo nga xam ne démb rek ndeysaan segg a café bu Euh, am solo ndeysaan indil ko mu saa Ndaw lépp rek eh, ci ngan gi soxna Ndey Xadi Fall moom sëñ am ni Moodu Mbend di ko ziar baax a baax ak waa daayira Xidmatu Lamp Fall sëñ Babacar Diagne ñoom ñëpp fàttewuñ leen di jaajëfa baax sëñ Talla Gueye moom sëñ Moustapha Abdou Khadir mhm. moom tam ku ñuy bàyyi xel la sëñ taala Gueye nekk fii ci eh, côté Padoua rek ndeysaan dëkk foofu soxna Ami Gueye nag sama jigéen la moom nekk parcelle di ko ziar baax ak borom seen sëñ Diop Ndoy eh, di jaajëfal baax a baax mboolem murit yi nga xam ni ñuy topp fii ba Touba ba Njaaréem fépp rek ak Thiès fàttewuñu Medina Fall ak Kawsara yëpp rek di leen jaajëfal baax a baax di sant baax di ñaan suñu borom defal ñu jàmm ñi àddina ak jàmm ëllëg ci barke maam Cheikh Ibrahima Fall sëñ Mamour la bu baax a baax xam naa fi ñuy tàggoo sañ mm-hmm. sëñ Mamour mooy di euh, bëral euh, nuyoo ak ñaan bu dee sañ mm-hmm. nañ ko sunuy sunuy waajur ndax nag lépp loo xamante ni mën nañ ko wala mm-hmm. nu sañ ko rek c'est euh, ñoom si ñoom la moo tax nu ngi leen di ñaanal bu baax sunu borom yàggal leen fi loolu te ñaan ak wér ak mbooleem waajur ndax nag bu ñu demee ba suñu boroom dogal hmm. eh, cër yu mel nii hmm. eh, ñu koy am lu mel ni bàyyi am ni ndaw di di di teew si eh, diwaan bi hmm. ak ni mu demee lépp xamal ni ñoom ñooñu ñoo ñoo seen seen doole la kon ñu ngi leen di ñaanal ah, bu baax soxna Mbayang Sëy daal moom dañ koy ñaanal at yu bëree bëree bëri rek waaw ak sunu wéyjur ah, Baye Moussa ak ñoom ñëpp fàttewuñu leen benn yoon waaw mboolem njaboot gi rek mboolem njaboot gi di leen masawu coono bu baax waa xam naa ne sax coono amu si ndax ñooñu gën a bëgg ñoom si mbir mi te taxaw nañ bu baax baax wax dëgg yàlla mhm. euh, di ziar mboolem mbokki jullite ak mbokki taalibe sëñ Mamour waaye mhm. beral nuyoo ak ziar nag euh, sëriñ Lamp euh, Ndaw mhm. duñ ko fàtte benn yoon di jàmbaar loolu taxaw sëriñ bi sëñ Cheikh Baye Góor sëñ Cheikh Baye Góor Ndaw moom ñu ngi koy ziar baax a baax di ziar ñoom ñaari sëñ Cheikh Baye Góor yëpp ñu ah, leen di ziar sëñ Ablaye Yaxin sama xarit maa koy ah, ziar baax sëñ Fallou ah. Ndaw Ah. ñoom sëñ sëñ eh, mm. sëñ sëñ naalin bàyyi ndaw nu ngi koy ziar bu baax a baax mm-hmm. ak booleem njaboot gi rek eh, sëñ mm-hmm. am di ndaw fàttewuñ kenn rek mm-hmm. ñu ngi leen di ziar bu baax a baax di ziar bu baax nag eh, sëriñ Abdoulaye Gueye Baye Fall mi nekkoon si liggéey bi moo sëriñ Magaye ngi si waaye ziar bu baax a baax sëñ Masek Diagne moom namoon nañ ko lool ziar sëriñ Assane Fall si wàllu réalisation bi sëriñ mm-hmm. Lamine Ndiaye si wàllu vidéo bi jox leen daje incha allah dinañ ñëw nag sëñ Mamour mm-hmm. spécial sëriñ Modou Aminta Fall mm-hmm. incha allah euh, dinañ si ñëw si ay jotaay lii barkeelu la woon nag si jëmmam ju tedd jeeg liggéey dalal nag ñoom sëñ Baara Mbodj ak sëñ Ibrahima Dia mënuñoo ñàkk incha allah ñoom ñu ngi leen di waajalal bu baax a baax a baax a baax incha allah incha allah waroon nañ ko ànd ak ñoom jamono ji sax waaye sunu borom dogal xëy na xat-xat yi waaye dinañ ñëw ak ñoom ñu gën a yaatu incha allah واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين امين بارك الله شرف بسم الله